jaamu seeni soxla li ci yéene kay yëgsi nañu ci xibaaru yéenekaay yi fas yéene ko door rek Walf Quotidien mi dikk ak ñun ak njiitu réew mi euh, Basirou Diomaye Faye euh, jëm na ci euh, fay bor gi nga xamante ne moom la amel ñi nga xamante mooy béykat yi bokk na ci tamit saafara jafe-jafe gi béykat yi doon dund ci wàllum engrais daanaka njëg ma wàññi na ko ak fexe bay tamit yoonal am ci wàllu suuf sek yeneen ak yeneen yéenekaay bi gis na ci jamono ji jël na ci matuwaayu mat sek moom njiitu réew mi Basirou Diomaye Faye mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien yéenekaay bi delluwaat ci ndaje conseil des ministres gi woon démb euh, premier ministre Ousmane Sonko jëm ci wàllub euh, kër yi nga xamante ne état moo ko moom ne daañ ko saytu waratu nekk ci loxoy privé bi Ousmane Sonko jël na ci matuwaay euh, sàkku na ci nguur gi mu saytu yooyu le dëkkuwaay mu ngi ci yéene kaabi di laas yéene kaabi di le quotidien mu ngi ñuy dektal ne premier ministre Ousmane Sonko yemu ca bëgg nañu càmbar finance publique yi bokk na ci lu ko dale janvier 2019 ba fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2024 duñ ci bàyyi lenn la ñu bëgg teg ci tabal ji euh, gëstu ko yéen a bi ne ci jamono joo xamante ne askan wi yitewoo nañu daanaka ku leen saafaral euh, jafe-jafe gi am ci njëgu dund gi nguur gi ma ngi cay waxtaan Basirou Diomaye Faye ak euh, nguuram ne daañ ci jël matuwaay ngir fexe ba njëg yi mun a wàññeeku ci marché bi askan wi mun cee gis seen bopp premier ministre itamit xam le ne lépp lu moomeelu état dina delluwaat ci état loolee xam le nañ ko demb yéen a bi moo ñu ko yëggee yéen a bi di xëy meeg càmm gi Bassirou Diomaye fay njiitu réew mi jël na ci ay dogal yoo xamante ne tukkee na ci ndajeb conseil des ministres sas na ci jor nga ñu denk wàllu googe ñu fexe daal ba sàmm càmm jeek mbéy mi taxaw béykat yi gunge leen ci nawetu ren ji mu ngi ci yéen a bi di 24 heures yéen a kaay geneen di réew mi quotidien njiitu réew mi yemu fa beral na loxo jigéen ñi taxaw leen ci wàllu koom fexe ba jigéen ñi mun a demal seen bopp ci wàllu koom loolee tamit Bassirou Diomaye bi di réew mi quotidien ne lu aju ci tuxum cigarette gi Abdoul Aziz Kassé docteur bi ma ngi cay dànkaafu askan wi rawatina tuxkat yi xamal leen ne eh, benn minute bu ne fukki doomi aadama ak juróom dañ ci faatu ndax tuxum cigarette mu ngi ci yéene kaa bi di réew mi eh, quotidien l'info desandek ñun ci tuxum cigarette geek rawatina ci l'école yi alerte dànkaafu na eh, askan wi Abdoul Aziz Kassé professeur bi xam le ci l'école googee sax daanaka cigarette si mu ngi fi bëgg a bëri te mu ngi jur loraange ci euh, ndaw ñi saay su ne ña ngi cay sànku am na ci ñoo xamante ne daanaka dañuy teel a ñàkk seen bakkan yenn a bi di euh, Sud Quotidien xëy duñu tegtal jéego yi ñu fi defoon ca nguurug Macky Sall gawoon ngir euh, jëlee fi mbuusu plastique yi ba léegi yëf fi defal laaj tey jii la plastique yi gën a bari ci biir réew mi yéen a bi moo ñu ko yëggee mu ngi ñuy dégtal tamit li nga xamante ne mooy tolluwaayu nguurug Sénégal ak jafe-jafe yi nga xamante moo nar a gàllankoor nguur gi lu ci borom xam-xam yi quotidien source a mu ngi ñuy ne waa APR ko seen digganteeg waa PASTEF bi euh, ba ma ñu teg loxo doon lu metti lool waa APR yéen a bii di source a jàpp ne duñ ca sori ndax gatsa gatsa salon lañ ko def ñu bari ña ngay wax waaye nag génn guñu euh, ci seen euh, salon ya yéen a bii di source mu ñu dégtali tamit lu aju ci imam bu Derklé mi ñu ne xutba baak julli fajar ga mujjee na teeri ji ca tribunal yéen a bi ko yëggee yéen a turbine desandeek ñun eh, ci turbinalu Ndakaaru eh, gannaaw nguurug Macky Sall ga woon ci tëj ak eh, tijji yéen cabinet nguur gu bees bi ndax newuñ ne dañoo bëgg a jëfandikoo yoon ngir mun a toroxal ñenn ñi xañ leen seen afiya dem leen yóbbu leen kaso yéen bi di turbine moom la xëy xamal ci xëtam bu njëkk yéen bi di la mandat jàpp ne arrestation yi daanaka tàmbali na bu ñu sukkandikoo ci mbirum bajaxate ma ñu ne kaddu yam mu yëkkati te ñu gis na tegginawul mu teg ko ci ndoddu premier ministre doon du ko yóbbee ñu teg ko loxo yéen cabinet nguur euh, gu bees bi na moytandiku jaar fa nguurug Macky Sall jaaroon ci euh, tëj ak toroxal doomu aadama yéen kaa bi di bés bi le jour ne ba jaxate lay wuyoo daanaka moom ak euh, Pastef euh, neexootuñu yéen kaa bi ne tegum loxoom bi sax euh, juraat na ñëgg-ñëggu xol ci diggante APR ak Pastef coow la tàmbaliwaat na mu ngi ci yéen kaa bi di bés bi le jour yor-yor bi moom xëy yor di ñu dégtal lu aju ci promise ma xamante ne yaay Fatou Diagne moo ko jiite promise goge ak rapport Dodi Gacha am ci atum 2019 lu ëpp juróom-benn téeméeri million ya ñu ne jot nañ ko ci loo xamante ne eh, teguwul fenn moom la yor yor bi xëy di ñu ko euh, dégtal euh, le soleil mu ngi ñu dégtal ñu yëngu ci wàllum defarum lem lem googee na mu tëddee ci mim réew yéen kaab ñu dégtal ne euh, lu ëpp daanaka ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay yamb yoo xamante ne ñu ngi tàmbale tuxu saay su ne loole nag professeur Khady Diatta Badji wax na ci dañu fexe ba toppatoo yamb yooye ba lem gi mun a bari ci mim réew yéen kaab di stade mu ngi ñuy dégtal lu aju ci Ismaïla Sarr ma ne ca Marseille yéenekaay bi euh, sampab laaj ndax du mujjee fekki euh, Pape Gueye ca Villarreal laaj lagu samp ci yéenekaay bi di stade tënk la woon ci xeetu yéenekaay yi daan ci dikkaat incha allah càmbarale leen ko ca na mu gën a yaatoot ci xibaaru digg bëccëg gi lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na jaajëfal ma gay mi. al kenn dootu leen ko présenté ndax képp ku ma sa jëflanteeg moom am nga ci satisfaction à 100 pour cent Maulana Cheikh Ousmane nag gannaaw ba mu leen andilee sifaawu jooni jooni mbokk yi Cheikh Ousmane Touré andil leen café sifaawu jooni jooni di faj 70 maladies ci seen yaram ñu mën cee jàpp hémorroïde bu feeñ wala bu nëbbu tension wala ulcère kuli wala ndoxu siti diabète wala impuissance sexuelle di góor gu néew kàttan day faj rhumatisme ak estomac nee naa la café sifaawu jooni jooni bi daal efficace na ndax lu tolloog Ousmane Touré da leen a andil garab gu bees tàq gu ñuy tuddee céréale magique bu sifaawu jooni jooni ah mbokk yi fexe la ñam céréale magique sifaawu jooni jooni bi nag ndax li nekk ci biir nee naa la ñam xam la yow mii di góor day renforcer say miskil yokk sa kàttan may la doole boo dee jigéen mu yokk sa ay ans jox la forme ba nga xam ne foo romb tarkal la rek ngay dégg kon yow mi bëgg a yokk sa ay ans bëgg am form ba nga xam ne foo romb ñëpp xool la xoolaat la gaawal gaaw jël ci céréale magique ku Cheikh Touré gii nee naa la céréale magique bi nag ñi ko jotee utiliser ñëpp ci gis résultat ndax efficacité bi nga xamante ne bii moo nekk ci biir ah Ousmane Touré nag mi ngi fii ci tiwaawan Pël Kër Massar Apix numéro téléphone am mooy 77 767 57 11 wala 70 485 12 18.